kon fi jàmm fekkat fi jàmm kon nag salaam mbokk ak xarit yu ni seetaan ci Sénégal TV ànd ci ak Seneweb dal leen jàmm ci seen revue de presse quotidienne du ñu def lu dul ànd ak yéen dugg ak yéen ci li gën a fës ci yéenekaay yi kon nag bismillah ñu xoolandoo li gën a fës ci japason actualité yi kilifa day jéggalee kilifa day jëllalee lool moy tax askan wu mu jité famu mu leen jëme mooy gën famu leen la tribune Macky Sall bi mu démé Tiwawon sen Abdoul Aziz Sall Amin daal di koy dalal yëkëti na ay kaddu ñu képp ku tek ay kaddu yu ñagas ci deram bi day mom day jéggal na la way ñi nga xamni gafa ka réew mi dañu jëloon xaaliss daal di koy luubal nañ ko déllu ci ngir ñu daal leen bay yoon nim leen ñu bay leen dal di doxi seen soxla ki war a nak ci biir neeg ginnaaw wax yi président Macky Sall yëkëti di fecc li nga xam moo di toj temps kooku nag moo di maître Amadou Sall Wolf Grand Place daal Fessel, koy fësal mu 22 janvier le ko procureur waroon a ñu daal di koy déglu Macky Sall nag ni wax joju koy ci souf mu ngi xamni ne maître Amadou Sall nenañ jamono yi nak xamagu ndax dañ koy bayyi xamagu ndax dañ koy wo way li wërtu woon mooy gàmmu Tiwaawan bi day xew-xew am fa bo xam dina tax mom meuna ci mbir mom jamono yi ñu toll de Aïda Mbodj ak ki nga xam Ousmane Ngom l'enquête yene kay ni de ay niir yu ñoo di procureur spécial bi dina leen wo daal di leen di deglu ñu dégloo ki nga xam moo di Mbaye Ndiaye bu ADS nee nañ jox nañ ko procureur spécial jamono yi kii di Aïda Ndiongo dafa am ay société écran yoo xam ni xel daf ci daal di tey ba tax na jamono yi ñi yoroon réew mi waa PDS ñi ngi leen di topp kër li nga xam ni xaalis bu nu luubal la wala am nañ ko ci am boo xam dafa daal di tey xel loolu faw nu leeral ko ci kanamu yoon tibbantey tànk ak jëlante jaas yi ci diggante Latif Coulibaly ak Wayana Mar l'observateur moo daal di fësal ni kii di Latif Coulibaly ca Sokone yëkkati woon na ay maar dafa mel ni média yi ak journal yi ñoo leen daal di yëkkati moo tax ñu yëkkati ay mbagg waaye ñoom ñoom faluñu ki nga xam moo di président Macky Sall kii di Fou Malade Malal Tall daal di tontu kii di Fou Malade Malal Tall nee na jamono ji wax jooju ku ko dégg xam ni malhonnêteté intellectuelle la ci Latif Coulibaly caat ñi ñoom duñ fi ne di moom waaye li mu wax waru koo wax te ñoom li leen soxal mooy askan yi waaye nekk nu fi ko yàqal ki nga xam ni moom moo di président Macky Sall seen diggante nag jamono yi Latif Coulibaly yaana maar kenn ku ci ne fu sa teg ay nenam

kon nag mbokk ak xarit yu ñuy seetaan duñ def ni dul karaj kàcc tijji bunt bi ñuy dugal ci xibaaru tàggat yaram Abdoul Aziz Ndiaye promoteur ba toj na jamono waaye des na combat yoo xam ni day ci suñu làmb nee nañ faw nag yi amateur yi daal di koy seetaan fësal nañ ki nga xam moo di Lac de ñuy xaar mu jàkkaarloo ak kii nga xamante ni moom moo di Yékini wala ki di Baboy bëgg nañ ko boole ak Bombardier nee nañ Gris Bordeaux mi amagul combat tamit doon na neex loolu ñu gis ko ñu jàkkaarloog Tyson mi nga xam ne dañ ni moo ko mënoon waaye mënatu ko waaye affiche yooyu amateur yi ñu ngi koy xaar ngir ñu am saison 2013 boo xam ne day mucc ayib. l'observateur dellu si ci ki nga xam moo tax sose yi fier kii la ñuy wooyee Lac de Guiers yëkkati ay kàddu diggante ma Gris Bordeaux nee na Gris Bordeaux ñeme ko da koy daw li wér te wóor mooy Gris liñ ko xamee day mooy ku mu dóor nga dem ardo waaye kii di Lac de Guiers nee na bis bu jàkkaarloog moom dina xam ne nag beton beton bu dëgër këng la ko séqal kon nag mbokk ak xarit yu ñuy seetaan dañuy jaar ci buntu sarale bi rek daal di dugg yéen ci xibaaru xew-xewu jamono l'observateur daal di dëkk ci diggante ñaari per yi nga xam ni day yàllaa leen màcc ñëw ba tiim Sénégal ni leen tëf yàbbi waaye kenn ki nag Guinée Bissau la dëkk kooku la ñuy wooye Fatoumata Diaray Diallo ku mu joteel moo di Fatima Diallo mi nekkoon Miss Sénégal ci 2008 nee na ameel na ko lu tolloo 15 millions yoo xam ni ci organisation Miss CEDEAO bi nga xam ne ni doomu Guinée Bissau moo ko daal di gagné moom nag dafa gagné di woon ki nga xam moo di Fatima Diallo ba ñu jugee fi nga xamante ni moo di Miss ba nag mu gagné ko ci 2012 xaalis boobu mu waroon ko ko jox ñu jëndal ko ci ci oto boobu léegi nee na gisul dara xaalis bi nee na France ma ngi koy topp ngir mu delloo ko xaalisam kii di Fatima Diallo nekkoon fi nag Miss CEDEAO Miss Sénégal jamono yi nag coow ma ngi koy topp coow laa nga Grand Place coow laa nga ca marché ba coow laa nga kër yaa ma di tax ca xolli ga ak muucu ga kon nag mbokk ak xarit yi ñu doon seetaan ci Sénégal TV ak Seneweb dafa mel ni suñu revue de presse ñu ngi ci cappaandaw ga du ñu def lu dul di leen ñaanal mucc ak ju ànd ak jàmm ju sax di leen jox dig daje suba incha allah ci beneen revue de presse boo xam ni fii lay xawee kon nag ñoo ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam.